voilà ah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuhu comme li yi di wax rek without further ado we just gonna go ahead and start maanaam dañuy daal di tàmbali waxtaan wi ah, defe naa nag tey li nga xam ne moom moo lëmbi àddina amul kenn ku mu ump ah, ndax gis nañu ah, li nga xam ne c'était attendu xew maanaam li tubaab di ne li waroon li ñuy ne ci wolof li waroon xew-xew xam nga asamaan bu xiin muy waaj a taw mu taw rek c'est normal parce que asamaan si dafa xiif xiinoon ñu ngi doon waajal taw euh, waaye mboxari faal mu gëm sa bopp euh, waroon nga vraiment xalaat balaa ngay dugg ci lii nga xam ne moom nga dugal sa bopp nii ndax nguuta gi nga dugal sa bopp nii lu dul tuutal ci sa bopp jëlewoo ko ci ndax bu fekkee yaa ngi seetaan commentaire yi ngay seetaan live yi ngay seetaan doomu aadama yi nga xam ne tey ñu ngi wax ci àddina waxtaan bi yëpp yow la te man dafa am loo xam ne daf ma jaaxal man xëy na man la jaaxal ci senegal waaye am na ñoo xam ne ñoom ci seen bopp ñiy def jéey jaaxalu leen Bamba est-ce que tu te rends de ce que tu as fait à ta carrière politique malgré xëy na yow am xam nga lu ñu xamul woon ñun peut-être yow xamoon nga ne sa carrière politique jeex na xëy na sénégalais yu bari ñoo ko doon layam layame wala yaakaar ne ah peut-être am na lu la ci dese waaye ñun xamoon nañu ne sa carrière politique c'était ndax keroog yaag sa waa ji ba ngeen da dungur dunguree ba ci Yewwi Askan Wi dugg fa am dañu ne woon ci Yewwi Askan Wi ñu ne la même ci duggoon it yow du yow lañuy ñuy tàbb teg la Médina maanaam keneen la ñuy tàbb parce que yow xamoon nañ ne traître nga et tu vas trahir lu tax gars yi léegi duñu lekk seen jëw pourquoi léegi man loolu moo ma gën a jaaxal lu tax nit ñi duñu lekk seen jëw hello sister Malika gars yi maa ngi leen di ziyaare yen ñëpp I said hello to everybody maa ngi leen di ziyaare yéen ñëpp maa ngi leen di ziyaare di leen jox seen wàccuwaay mais lu tax sénégalais du lekk jëwam il faut ngeen am loo xam ne da ngeen koy comprendre ci komba bii komba bi waxoon nañ leen ko avant ñaari pàcc la benn cent personnes ñoo ñu jàpp otage fi mu toll nii cent personnes ñoo jàpp Sénégal otage man d'accorduma sax ak ñi nga xam ne dañuy ne quatre cent wala cinq cent wala benn genn walla non benn minorité bu ndaw la rek téeméeri nit ñoo ñu jàpp otage téeméeri doomu aadama ñoo jàpp Sénégal otage xanaa Bamba xooloo ci Idi xanaa xool loolu li dal Idi maanaam yow tey dem nga ci Macky Sall yàq na la te kenn du la topp xanaa xooloo ci tunkaramu 2S waaja le petit transhumant moom lui il était un petit transhumant mais Idi c'était un grand transhumant xanaa yéen doo leen xalaat like don't you think maanaam how naka ngay garder yow sa sa sa njànk sa virginité nga nga ko garder ko garder ko ba mu valeureux nga gis un milliard jaayoo ci sa bopp nga dem ñu jox la dix dollars di euros nga jaay ci sa bopp man mantey tey senegal dara jaaxaluñu ci nag parce que li ma wax gaa yi la rek ñun ñi ñu gëm te ñu ànd ak ñoom ñooñu duñu mës a jaay seen ngor ñun xam nañu loolu ñun suñu génération bi ñi ñu gëm te xam leen te gëm leen te ànd ak ñoom xam nañu ne ñooñu duñu ñàkk duñu jaay seen ngor man mënumaa comprendre je ne comprends pas xanaa nit boo amul xam-xam sax am na loo xam ne ñu ne junju doy na boroom xel yow laata ngay dem même journaliste yi bu ñu la daan interroger dañu lay catégoriser stigmatiser la nela yow de dégg naa ne jël nga xaalis da ngay waaj a dem donc yow déjà c'était écrit sur ton front que je vais transhumer j'attends que l'opportunité bamba nga jot ci opportunité bi nga ne moloos dem mais tu yow xanaa xamuloo loolu yàqu nga tey boo xoolee réseaux sociaux sénégalais yi yow mënatoo wax doomu aadama lu muy gëm yow mënatoo yegg ci mbooloo ñaari nit xool la jox la loxo maanaam tey foo rombati dinañ ne jàmbaa ngi di dem dañ lay joxoñante lii moo la indi woon ci élection yi ngeen xam ne yàlla yewi askan bi yàlla moo koy aar lii moo la indi woon ci élection yi nga ñëw yéen ñëpp ngeen daw rallier ji Yewwi Askan Wi ñu yónni leen ne leen dem leen tas ko foo leen mujj wallahi yéen a mujj ak seen gàcce de parce que Yewwi Askan Wi tey la gën a dëgër yéen rappajoo ngeen c'est extraordinaire kan moo ciy topp ban beneen traître moo ciy topp parce que tey imaginez Sénégal fi mu tollu ak réseaux sociaux ak dooleem ak communicateurs yi ak sen doole wallahi al azim kenn ku nekk ci yéen képp ku trahir yow yay des ak sa ak sa gàcce sa gàcce yow dong lay topp parce que les kenn mënatu leen nax du mën a éveillé ils ne sont pas carrément éveillés waaye genn wàllu sénégalais yeewu nañu tey ñun genn wàllu doomu Sénégal yi yeewu nañu kenn ku nekk ci moom ci ñoom wallahi boo yëkkatee ñetti kàddu dinañ xam lan moo ciy dëgg ak lu ciy fen ak lan moo ciy tappale ngeen yaakaar ne lii ngeen di def yéen lii moo mën a avancer loo réew di seddoo gato yow xamuloo ne Macky Sall dafa am loo xam ne daf ko soxla ci yow malgré moom xam na ne yow mënoo koo livrer Macky Sall ñi bokk ci partem te ñu ñàkk amul kenn kum ci jox cinq centimètres cinq secondes de temps Bamba ay waay vaar moo garaaw say kàddu dem ba ngi fi Bamba lay waa koñ ba waaw ay Bamba lay wax waa koñ ba maa ngi taalati vidéo yi ay bamba yow looy wax waa koñ ba ga jaam am na aaxo ah, gars yi maa ngi jéggalu gars yi maa ngi jéggalu affaire bi moo moo moo pertoon gis-gis perton connaissance waaye ñëwaat na live bee gëlëmoon live bi ci boppam moo gëlëmoon xam nga loolu tamit day am live bi da ngay dem ba ci biir live bi ci boppam day confuse day gëlëm fi mu ne nii man xaw ma bàmba lu muy wax waa koñ ba waa nañu ñëw déglu suñu copain allez nañ ko déglu mais xam nga daaw da daaw da buuba s'il te plaît buuba buuba nee na la yow da ngay dem deux pas ci kanam dem ñoom si sa bopp du ngay xoolee bu non non non non bët boobu la ma ne sàll ah yàqu loo xam ne mais buuba dem lu yow yaa ngi même yow da ngay def teg tàngo tàngo da ngay def deux pas mais mais bu ni ko ma laaj ne xaara lu tax lu tax yow tam luñ tiiree si kaw waa ji rek nga def non non yow non mais loolu la lu tax luñ tiiree si kaw waa ji rek li ma la wax ce que je ne comprends pas. non ce que je ne ah, comprends pas. il faut que bàyyi ñox. man li ma comprendrewul mooy je peux bien être d'accord que tu sois reconnaissant par rapport ak li Macky Sall mën mais tout à l'heure yaa ngi wax ni on ne s'oppose pas mais ta manière de parler de Macky Sall c'est-à-dire amul amul benn amul. amul benn rigueur. boo xamante ne c'est-à-dire dafa mel ni da ngay dafa mel ni da fii dama ne ñi fi jënd xam nañ leen bu ma taxaw wax ñi fi jënd ak ñi fi jox xaalis xam naa leen waaw dama la dama la man rek ma ñaata la moom ak itam soxla may poste am. man transhumé wu ma tey transhumé wu ma je suis spécialiste à vie. sama wax dafa leer man pas spécialiste laa dellu geste waa koñ be kaay leen Mbuxuri Faal waa Mbuxuri Faal la tudd waa ji kat théâtre la woon xam nga Sénégal ma mais léegi man li ma bëgg a xam mooy Bamba Mbuxuri Faal Mbuxuri Faal lay wax waa koñ bi Sénégal waa papa papa papa papa papa apalaw mais mais mais mais sama rak il faut ma ñëwaat ci yow dama nekk en direct waaw dama nekk en direct merci voilà donc euh, maa ngi jéggalu mais waa koñ bi mais Mbuxuri Fall lu muy wax waa koñ bi <laughs> bu ne mu ne man du ma transhumé je suis un socialiste à vie eh, Bamba laa ilaha illa allah muhammad rasulullah waaw mais Mbuxuri Fall lu muy wax waa koñ bi ah mais est-ce que ça normal dans une république tamit est-ce que duñu xoolaat suñu bopp ñun Macky Sall nii rek lañ koy bàyyee waaye mais dafa baax xam ngeen lan moo tax lii baax dañu soxla balaa ñuy jëlaat réew mi ñu am ay loxo yu set ay nit yu set ay xel yu sain ay nit yu dëggu la ñu bëgg am balaa incha allahu rabbi yàlla dañu joxaat réew mi parce que il faut savoir que yàlla bu la bëggee sa noon yëpp daf leen di feeñal xam naa ci dara nag man yàlla su la bëggee gis ne noon yi la wër yëpp yàlla daf leen di yi seen sutura loolu moo dal mbuxuri faal yàlla dafa nekk di yi seen sutura benn par benn di leen dévoiler seen banditisme muy génn benn par benn billaahi waxoon nañ leen ko nee nañu leen Sénégal bii ay nit yu màgg ñoo fi ne ay gone yu am xam-xam ñoo fi ne boo leen yaakaaree ne man ngeen continuer dox suñu servo yi peine perdue <coughs> ah, ah! gars yi damay indiwaat Mbuxuri Fall Mbuxuri Fall la tur bi c'est pas Bamba Fall Bamba Fall aka la aka maanaam aka Bamba Fall mooy li mu jox boppam maanaam moom gëmul boppam dafa gëmul boppam tur bi du Bamba Fall Mbuxuri Fall la xaar ma ñëw c'est important man li ma jaaxal mais maki Sall nu muy xoolee partisan am yi wala ban respect la am ci yéen Macky il a quel sur ses partisans laaj la rek Macky ban cër la jox ñi mu àndal ban cër laaj la rek damay laaj maki ban cër la jox ñi mu àndal est kenn man na ma koo wax Bamba lii nga def nii moom la la ñëpp doon xaare lii la wolof di ne buñ la yàkkal ci boolu xaj di la ci fekk nga ciy lekk Bamba lii la la ñëpp doon xaare fii la la ñëpp doon xaaree fii la ñëpp yaakaaroon ne yow fa ngay teeree ay bamba mbuxuri faal bokk parce que turu bamba bi sax dafa tedd loolu kenn waru koo jël di ko associé ak yow man dafa am lu ma jaaxal ci senegal oh oh bamba lay wax waa koñ bi man bi ma seetaanee lii barki démb laa jot message barkaati démb laa jot message bi Bamba Fall a rallié avec Macky Sall nangam nangam mais kom dañuy moytu te dañuy bëgg lépp lu ñuy def ñu am ci firnde ma ne borom vidéo laa soxla comme bëgguma rek bind yi bind yi ça ne me borom ne ma takk ko téere c'est garanti c'est déjà écrit signé sur papier ma ne ko non non non du ma ko tudd man du ma ko génnee sama biir gémmiñ di ko wax ma waxtaane ko nag ak ñi nga xam ne ñun ñooy liggéeyandoo ci one million ma ne leen information bi bu mu génn bu ci kenn laal parce que amuñ ci firnde on n'a pas de preuve te lu ñu amul preuve nañuy moytu di ko wax parce que ay nit ñoo ñuy seetaan parce que ñi ñuy seetaan suñu ay nawle lañu am na loo xam ne bu génnee suñu gémmiñ jëmale ci ñoom buñ ci juumee rek dinañ ci am gàcce bu rëy rëy ma ne leen fexe lépp loo leen man rek ba buñ ci indi lii waaye li ngeen comprendrewul mooy waa ji dafa yàgg ngarale xam nga li li li wolof njaay dina ngarale man indiwaat leen ci video Bamba Sall bu njëkk bi waaye balaa laataa may ñëwaat ci bu njëkk bi xaaral ma wax leen moom waxtaanam ak Pape Alé Pape Alé interviewé woon na fi Bamba Fall ci gouvernance su Macky Sall bismillah nañ dem déglu ko loo ci xalaat yow fi mu léegi lii bonne gouvernance su fan bu <laughs> Macky Sall loolu bonne gouvernance loo ci xalaat yow fi mu léegi lii bonne gouvernance su fan bu <laughs> Macky Sall yal nañu yàlla dimbal te yërëm ñu Baba Baba dañuy émission waay yal nañu yàlla dimbal te yërëm ñu Papa Alé xam nga li am ci réew mi moom ku ma am ndey ku ma amul ndey na rek parce que tey togal Karim togal Khalifa Sall togal ku ne fii ku bokkul ak yow parti du am jàmm procès Barthélemy bu dul jeex Mhm. comment nga te lu ne ñu gis ko sa parti te ñu may woo cee wax. ci ak yi fa ñu li muy procès bi sax bu ñëwee ñu renvoyé ambassade de France bu waxee ci affaire train beeg yu ma xamul ñu léegi dañuy bind. parce que tubaab du fen rek. tubaab du fen tubaab daf leen wax bu ma déggee presse bi tey ñu ne Amadou Ba moo bloqué leen dama dimbali leen dama ba ñëpp yëg ko <laughs> mais kay mi du mooy lu pareegul dañoo fee inauguré yu pareegul. loolu premier ministre Edouard Philippe ba mu ñëwee oh ay waay ndaw sa ay ñun fu ñu jëm ci senegal kii da Bamba la kii mooy Bamba ngeen déglu ko ci ay kàddu boppam. ma ne président daf ma betti benn sakk ndax wóolu na ma barki dem ñu waxtaan waxtaan ci réew mi euh, tey tamit mu wóolu ma ni ma def naa la mise conseil auprès du président. ba koy sant di ko gërëm man nag Medina ci xol laa bokk. yaakaar boo yow bokkoo Medina ci xol yow koppar ci xol. loolu laa parce que li mu wax tamit neex na nee na ma yow da nga ni tàndal ko loxo waa Medina yi tendance bu waay bokk man tey ma bëggee ko noonu ci réew mi moo tax nga doy ci exemple kon bokk. <laughs> waa mais xanaa Macky dafa am loo xam ne dañ ko def ci moom ba nga xam ne bu jàkkaarloo ak gars yi rek daf leen <laughs> waa tat tat tat tat man maa waaru ay waay laa ilaha illallah muhammad rasulullah ay bari nañ fi de ndeysaan <laughs> ak fi wari waro bamba laa ilaha illallah rasulullah mais lan ngay wax waa koñ bi Bamba naka ngay jàkkaarloo ak waa Médina nga communiquer ak ñoom ah Bamba naka ngay jàkkaarloo ak waa Médina nga wax ak ñoom naka nga koy mane yow Mbuxuri Fall naka ngay mën a jàkkaarloo ak waa Médina nga wax ak ñoom J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de postes quand même aujourd'hui dans les réseaux. Mais damay waxaat ak patriotes yi rek patriotes yi ñi nga xam ne dañoo am ngëm-ngëm ñi nga xam ne ñun dafa am ci yoon bi ñu nekk dafa am ci chemin bi ñu jàpp dafa am tali bu jub bu ñu jël malgré gàllankoor yi ñu jànkonteel yépp malgré li ñu malgré kaddu yu ñaaw yi malgré euh, xaste yi malgré saaga yi on a tenu tête haute gars yi ñun nañu continuer ci suñu taxawaay boobu traître njëkkeewul ci Bamba Fall du mujj ci moom ndax suñu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam daan na ko wax mu ne traître dafa baax ci mbooloo parce que lu bari dina ko feeñal il faut que doomu aadama yi ñu bàyyi loolu xel il faut nit ñi ñuy bàyyi loolu xel ñuy bàyyi xel ne ci biir xeex dinañu am toujours ay doomu aadama yoo xam ne dañu am seen agenda te Bamba dafa bokk ci doomu aadama yooyu dafa bokk ci doomu aadama yoo xam ne ñoom dañu am agenda personnel Bamba xam na ne waa Medina weddi nañ il a mu indi ay njuuj njaaj indi ay tappale jaxase ay kart yéeg a ka wàcc indi tout ce qu'il pour mu dugg ci lu mu mel nii tey Bamba waa Medina wóolu la waa medinaa jël seen kóolu te teg ko sa loxo yaakaaroon ne nit nga ak li nga fi wax yépp ak li nga gëmloo nit ñi yëpp man jot naa ay doomu Medina yoo xam ne tey nee nañu wallahi naqar bi ñu am ci seen xol tan lekk sax mënuñu koo def ndax dañu gëm seen dañu gëm ne ils se perdu le temps waaye gars yi Macky ci politique la na de Macky ci ay campagne yu metti la nekk Macky Sall mi ngi ci ay campagne législative yu metti képp koo xam ne yaakaar na ne man nga koo gàllankoor dana jàkkaarloo ak yow ci nii wala ci nee ginnaaw bu bokkee coupe bi doxantoog moom fépp ci Sénégal ndax lim ñu digoon ma mënu koo livrer <coughs> dina jël dina jéem a jël jaami yëpp bokk leen ànd ak ñoom waaye loolu ñan ñu lan lañ ci mën a wax lu dul alhamdulillahi rabbil alamin waaye Bamba waroon ngaa xool ci sa grand frère Idi Idi tey lu mu jar ci senegal yow xam nga ne Medina bii campagne moo la fa teree tëb yow pare nga ci Medina tu as fini xale Medina yii ma xam xale yu xarañ yii ma xam moins moins nga wàññi ci rek quelques-uns parce que am na fi ay booy comédiens yoo xam ne ay booy Medina la ñu woon ñu ñëw fi àdduna yëpp yëkkati leen man man man mais Medina nag Medina dafa bari ay dafa bari ay gor Medina dafa bari ay gor. bari na gor lool waaye yu mel ni Bamba Sall yi Bamba Fall yi tamit mbuxuri Fall yi y'a quelques-uns yoo xam ne dañ ci lakkatu gis nga lii banditisme la il faut doomu aadama yi bàyyi ci xel jeunesse bi surtout la jeunesse soyez conscient xam nga waxoon nañ leen lii ci élection yi jàll élection yii ñu jëm nag moo ko gën a important xam nga ñu bari dañu yaakaar ne élection yii di ñëw pour dégager Macky Sall rek la noonu non bul fàtte ne élection député yii di ñëw bu fekkee opposition bi dañ ko ñàkk même bu dee élection présidentielle yi opposition bi dañ ko gagné dinañu am difficulté bu mag pour gouverner parce que xam nga ban difficulté la ñuy am parce que assemblée nationale bi bu boobaa day nekk opposition maanaam waa APR ñoom ñooy tënk assemblée nationale bi donc même bu dee président nga fa indi tey boo xam ne opposition bi la dinañu def lépp lu ñu man pour gàllankoor ko donc Yewwi Askan Wi dafa war a jël assemblée nationale bi à presque quatre-vingt-dix pour cent waruñu def erreur waruñu def de on n'a pas droit à l'erreur moo tax dès maintenant même ci diaspora bi am nañu ay groupe Yewwi Askan Wi doomu aadama yi bëgg a volontaire ci état yu différent ay Chicago Ohio euh, euh, maanaam euh, voilà Chicago comme Illinois Ohio California maanaam état yëpp daal état état yëpp Kentucky ah Pennsylvania état yëpp ñi fa war a volontaire dañu bëgg ngeen gaaw bindu parce que dañu bëgg a siéger on veut siéger yoon bëggatuñu tappale am fenn ci àdduna bi Sénégal même chose dee leen volontaire ngeen créer ay groupe de vigilance ñu ngi koy continuer ba léegi ak suñu frère bu xarañ boobu Moustapha Sano ci université de Dakar pour mu gën a yaatal plateforme de surveillance bi nga xam ne moom la ñu créé fële ci Casamance te mu amoon fa succès gars yi wax rek noppi jaratu ko de bindu leen woote man ku ma woo nga nekk fii ci Amérique ne ma Tunkara état bii laa ne état bii laa ne dama bëgg bokk ci comité de surveillance bi dañ lay tabb dañ lay jël ñu jël sa numéro de téléphone ñu xam leen sur le fond ñu tukki gisante ak yéen wala ñu def zoom meeting ñun ñëpp ñu xamante mais c'est important parce que incha allahu il faut que ñu ànd ñu doon benn say parce que ñi mel ni Bamba Fall mii ñi mel ni Mbuxuri Fall dañu bari de ñu ngi fi jeexuñu de dafa am la y a des têtes qui mais am na ay bopp yu bari yu làqu yu feeñagul bopp yi làqu feeñagul amaana sax moo ëpp yi nga xam ne moo feeñ ndax Bamba Fall mii dafa am fu mu bokk te fu mu bokk ki ko jiite ci boppam amul luñ ko tuumaalul ci atum ren bii Montréal aussi sama frère Bala Moussa Fofana yaa ngi nii voilà donc Montréal ak fépp nag Canada USA euh, maanaam Europe fépp foo xam ne doomu aadama dafa bëgg bokk pour siéger il faut ngeen bind ñu teel a bindu parce que élection yii ay élection la yoo xam ne dina changer toogaayu Sénégal pour des années à venir parce que Mali te boo leen déggee li fa nekk armée française gàddu na ay dëbësam génn na kenn génnewu leen ñoo génne seen bopp parce que amatuñ fa mérite li xew Mali te xew Guinée moo war a xew fii ci Sénégal gii ñu ne suñu senegal njaay xew fépp ci diaspora bi seul la lutte libère nag mënuñoo juum de on n'a pas droit à l'erreur Angleterre waaw fépp nag ci diaspora bi rek fépp ci diaspora bi Maroc ak fépp muy fépp foo xam ne du réew du suñu dëkk ci boppam muy diaspora même Gambie dañu war a am ay taxawaay tey boo leen xoolee li xew ci Sénégal daf lay tiital ça rend ay doomu aadama yoo xam ne dañu leen wóolu jox leen sunu lépp dénk leen suñu bopp ñoom ñu dem xuloo xeex wala nangam xëcc ay élection la lendemain waa ji tabbaguñ ko bañ koy tàbb ak bi muy jaay ngoram matul vingt quatre heures et pourtant Macky na ko opposant ba gars yi tuddee waa ji Messi mooy ki nga xam ne tey moom moo yor caisse de dépôt et de consignation ki remplacé Alioune Sall kooku la ñu tàbb Medina ñooñu tamit seen vidéo ngi fi waa Medina ñoom seen vidéo ngi fi de waa APR ñu ngi rey seen bopp ñoom it ñu ngi jooy nee nañu ñoom li leen naqari mooy li leen Macky Sall jaay waa APR ci boppam ñu ngi jooy de waa APR laa la ñoom ñoom ci seen bopp ñu ngi pleurer ils sont en train de waa APR ci boppam vidéo bi laa leen di indil nii ngeen déglu ce qui est extraordinaire c'est extraordinaire c'est extraordinaire maanaam man tey mujj gi dangay dem ba nga yaakaar ne dangay gént tu penses que tu es dans des ci ay gént yu xóot nag dans des rêves profondes ngeen yaakaar ne ñun fan la jëm ñun fu ñu jëm réew moo xam ne sawaay ñi nga ñi loo wax ak doomu aadama bi léegi dix minutes nga génn ci et puis c'est les mêmes personnes c'est les yi saa bu leen ko jiiñee ñoom ñooy génn ñoo weddi voilà door ci kaw table non jamais man du ma traître man du ma jaay sama bopp man du ma jaay sama ngor nañu déglu suñu waa APR bi lu mu wax bismillah. matin mu ngi lay ñu ngi leen di ziar. Adama Fall yow ñu gën la xam responsable politique alliance pour la république ci diwaanu Médina tey njiitu réew mi nommé Bamba Fall ministre conseiller à la présidence sa réaction bu njëkk lan la. tout d'abord di ko di wax ni yoon may na ko mu fal parce que mooy président de la république. mooy fal au pouvoir civil et militaire. mais ñun ñi nga xam ne ñoo sas parti bi ci biir Médina dañoo am naxar. naxaru xol naxar boo xamante ni kenn teguñu ko ku dul suñu kilifa parti. parce que dañu sos suñu parti ci biir Médina. créé ko ko ba dara doonulee dara dëkk di xeex ak Bamba Fall ci biir Médina élection jeex ñu dem ak moom ballottage lu mu ñu rawee barewul ñu jàpp ni tey suy renforcer di am ñu war a renforcer les responsables de la perte de la Médina mun na dak jëm jëli ko neex mais suy renforcer na renforcer les responsables de la Médina parce que renforcer les responsables de la Médina moo tax garde bi nga xam ni dañ koo am diggante moom ak ñum ñu dem jëli ko mais malheureusement humiliation lañ gis mooy maanaam yéen ñi nekkoon APR sos ko biir Médina tekkiwu leen dara Bamba Fall moo leen gën a ne la xool la am parce que suñu sañoon loolu du am suñu biir parti mais malheureusement li ñu mooy taxawaay boo xamante ni dañoo pet di nga xam ni ñoo sos parti bi ci biir Sénégal ci biir média yi di ko wër Sénégal di ko ci def Bamba Fall di ko ko jaral tey nag sooy dooleel sooy dooleel suñ demee ba ñu ñàkk dem yóbbu nit balotage sooy dooleel da ngay toomeel da ngay sa njaboot mais doo jëli nit andi ko fal ko ministre mu raw ñeneen ñëpp sur l'ordre protocolaire maanaam daf ñu doon saaga démb tey dina continuer dina gën a saaga parce que suñu biir parti kenn weguñu ci duñ ñu jox cër biir Médina cër bi waroon mun a am ci biir Médina cër boobu dañ koy ñàkk ndax Macky Sall moo dooleel suñu noonu mais nag dañ dama wax lenn nga xam ko man ànduma ak Bamba Fall tey ànduma ak Bamba Fall suba. mais sa président moo ko tapp non dama lay wax dama lay wax non dama ne. taxawaay bi ma amoon ci moom ci biir Medina. taxawaay boobu lay continuer di am tey moom lay continuer di am suba. damaa jàpp ni Bamba Fall baaxul ci Medina te li ma jàppoon démb moom laa jàpp ba tey li ma doon wax démb ci moom moom laay wax ci moom ba tey parce que nag du tax du dafa ñëw ànd ak moom ñun rek ma ne dafa baax ba Bamba Fall baaxul ci kër baaxul ci àll te su ànd ak ñun tamit ndam bi yaakaan yaakaar dinañ ko am ci biir Medina dañ koy ñàkk loo nga wax loolu est-ce que tey mën na leen yokk dooleel leen moo tax amul lu parce que li muy wàññi moo ëpp ci li ñuy yokk dama ne ay nitu Bamba faal du ñu ànd ak Bamba Fall ñëw fekk si Macky Sall parce que nag au niveau de la Médina du ñu ay bàyyi ma nga xam ne dañuy topp nit aveuglément loolu mooy wax ci lan moo war a doon tey eh, yéen seen taxawaay yéen responsable alliance pour la république ba tamit ci diwaanu Médina lan moo war a doon tey léegi seen taxawaay. li ma xam mooy ñun waxu taw ma keneen. mais man mi sos sama parti ci biir Médina bokk ci ñi ko sos ci juróomi nit yi ko sos. xoolaat sama taxawaay ci biir alliance pour parce que nag ñàkkal fayda bi dafa ëpp beddi bi dafa ëpp. d'accord itam d'accord itam génn parti bi d'accord itam génn ci parti dama ne dinaa jël samay responsabilité xoolaat sama taxawaay ci biir alliance pour la décision bi ma ci war a jël yow mi nga xam ne yàlla def nga yaa ma woo dinaa la woowaat ne la jël naa décision bii te nag dinaa toog ak sama mbooloo waxtaan ak nit ñi wax leen taxawaay bi xool ban décision la ñuy jël ñun du ñu bàyyi parce que donc tey ce qui veut dire que tey Seydou Gueye bi nekk foofu ministre ak Cheikh Ahmad Tidiane Ba dafa mel ni dañ leen wër ndomba daal di indi kenn. mu jiite gox ba mel leen ni de nga baal ma ci kàddu gi. merci du delloo kuy de merci dama lay nga jàpp ko. Medina Bamba Fall mënul jiite coalition Benno Bokk Yaakaar. tant que maa ngi dund Bamba Fall du jiite coalition Benno Bokk Yaakaar bu Medina man Adama Fall maa la wax jiite coalition Benno Bokk Yaakaar bu Medina su président naree def man maa la ko wax parce que am nañ fulla am nañ fayda te duñu nangu ku ñu fayda ba ñuy ànd ak Macky Sall dañu ànd ak moom ci ngor ak fulla ak fayda dañu nangu mu ñuy bett di di jël nit koo xamante ni baaxul ci kër baaxul ci àll di ko ñëw teg suñu bopp duñ ko nangu. ah peut am na lu muy jagleel waa Medina ci. lu mu mën a jagleel wala ñëw dama ne. lu mu mënti jagleel waa Médina nee naa la sur l'ordre protocolaire ki nga xam ni moo nekkoon suñu candidat Bamba Fall ko raw ci l'ordre protocolaire loolu ñàkkal fayda doomu aadama la donc su bëggee andi correction yi ca war na ko andi parce que nag am ñu sosoon parti bi ci biir Médina gëm parti bi ci biir Médina di ci xaw boobu ba léegi problème yaa ngay tàmbali nag ci domb nag nga jël nit boo xam ne dañ doon xeex ak la wax Fall sur Sénégal Matin mu ngi lay sant di gërëm bu baax a baax. jërëjëf na tout cas lenn am na euh, kuy waajal ku takk sa ëmb ba pare ngay waajal waajalal bu baax de te nga comprendre ne mbir mi c'est du sérieux c'est pas des blagues c'est pas de la farce déglu leen waaj ji. daal bonne gouvernance loo ci xalaat yow fi léegi li bonne gouvernance su fan bu <laughs> Macky yàlla nañu yàlla dimbal ci yërëm ñu. Baba Baba dañuy émission waay yàlla nañu yàlla dimbal ci yërëm ñu Baba Alé xam nga li am ci réew mi moom ku ma am day ku ma amul ndey la rek parce que tey togal Karim togal Khalifa Sall togal ku ne fii ku bokkul ak. mais yow même waa APR nee na la yow da ngay dem deux pas ci kanam dem ñoom si sa bopp. du ngay xoolee ba. non non non non non groupe boobu lañ leen Macky Sall ah yàqu fi waxuma naan mais bu ko def loolu yow yaa ngi def même yow bu ñu ko def tey tàngo tàngo da ngay def doo bàyyi mais mais mais bu ko bu ñu ko mën a ñu xaaral ñu tax ñu tax yow luñ jiile si kaw waa ji rek non non non yow non non non mais loolu la yow tax luñ jiile si kaw Macky Sall man na fi ñu dëgg ma xam nga li ma wax moi ce que je ne comprends pas non dégg ma non ce que je ne comprends pas il faut que bàyyi ñox man li ma comprendrewul mooy je peux bien être d'accord que tu sois reconnaissant par rapport ak li Macky Sall mën mais tout à l'heure yaa ngi wax ni on ne s'oppose pas mais ta manière de parler de Macky Sall c'est-à-dire amul amul benn amul daal ngarale amul benn rigueur boo xamante ne day ngarale. man du ma yéen de fii dama ne ñi fi jënd xam nañ leen bu ma taxaw wax ñi fi jënd ak ñi fi jox xaalis xam naa leen waaw dama la dama la man rek ma ñaar dina mu ma ci sànn soxla may postam ma ko koy leer man transhumé wu ma tey transhumé wu ma je suis socialiste à vie sama wax dafa leer man pas socialiste laa dellu geste socialiste à vie ànduma ak Macky Sall ci parti ànduma ak moom ci coalition. il faut lui reconnaître des qualités. mais nag léegi ngeen bëgg may saaga nit. non dama xam ne bu dugg. mais ku def lu baax ñu def lu baax. li ngeen bëgg wax mais yéen Macky Sall dama ne li mu bëggoon déroulé déroulé ko. man li may festiger mooy où sont les opposants. président daf ma benn sàcc. ndax naa ne ma. waa léegi nag léegi nag kii kii kii li mu def ay doomam ak ay soxnaam kii kii lii lii lii loo ko noo koy expliquer comment tu peux expliquer ceci lii lii àq la lii àq man xam naa ko comme papa am na loo xam ne boo ko defee lii lu mel nii moom waxuma la boppam waaye Bamba Fall tey ay soxnaam ak ay doomam naka la ñuy mën a génnee ci biir Médina di fa fëgg dënn kii kuy maamam gars yi seetal leen ma maami Bamba Fall euh, euh, Mbuxuri Fall mii seetal leen ma ay maamam parce que xam nga man dafa am benn seetlu bu taxaw seetlu boo xam ne ñun ñëpp ñu ngi koy def tey ci Sénégal la plupart de traîtres boo leen seetloo seeni maam ay traîtres la ñu woon dimmali leen ñu rek ngeen xoolal ñu kii kan moo doon maamam parce que kii mënta juddu gor namp ci gor màgg ci gor lii la wolof njaay di ne juddu ci gëlëm namp ci mbaam lii lii la gele olof njaay di woowee juddu ci gelam namp ci mbaam boo leen ko déggee mi ngi mooy genre bi parce que sant bi mu yor sant bu tedd la sant bu ñu respecté la Sénégal mais kan mooy maamam c'est c'est c'est honteux lii dafa ruuslu moom ci boppam mi ngi wax mais xam na ne li muy wax moom ci boppam gëmu ko kii comme joor Diagne xam nga joor Diagne bi mu génnee banditisme boobu après ñun bi ñu demee def suñu homework li ñuy ne suñu ay recherche on a trouvé que ndeke Dior Diagne maamam moo trahiroon ki nga xam ne moom mooy Mamadou Dia c'est le grand-père de Dior Diagne qui avait trahi Mamadou Dia trahison bi ñu trahiroon Mamadou Dia ba jàpp ko maamu Dior Diagne la woon donc quand Dior Diagne s'est trouvé au cœur de la l'affaire Ousmane Sonko yave y avait pas de surprise donc sénégalais sénégalaise bu ñaawteef amee ci senegal nañu delluwaat rek ci ñi nga xam ne ñoom ñoo def ñaawteef yi ñu xoolaat seeni maam après dañuy noppalu xam nga ne kii xam nga ne kii judduwul fu baax walla ma yarawul fu baax tey bu xoolee réseau sociaux yii te mën a dund lii te lu raw li dal idi dalu ko ma xam ne que kii vraiment jàmbaar la kii du am jàmm fan lay amee jàmm balaa muy am jàmm APR na am jàmm Sénégal mais tu as volé la volonté des Sénégalais da nga li nga xam ne moom mooy volonté wu Sénégalais yi Sénégalais yi jël seeni carte wotel la nga sàcc ko c'est ce que tu as fait tu as waaye yàlla nelawut de waxoon nañ leen ko avant nee nañu leen tànk yéen a ngi trahir seen sutura dina continuer xaweeku gars yi nag ma ñëw ci loo xam ne tey ndeysaan macha allah Cheikh Baara boo ko dégloo ay kàddoom toujours cohérent ay kaddoom toujours mu jaar yoon te buy wax ay kàddu yu normal lay wax te li muy wax yëpp dëgg lay doon Cheikh Baara mi ngi ñuy jox ay leçon de vie ndax tey boo déggee Sénégal dama yeewu temps yële ma dégg eh, diw loo yor sa sac a gone diw loo yor sa sac a gone gars yi jël ko def ko eh, lu bees te ki ko doon wax sulaar la tuxkatu yàmbaa la drogué la maanaam moom moo jékki-jékki wax loolu kooku yorul sax lamset lamset sax amu ko waxatuma la gan léegi gars yi muy nappaate ñu ne ko loo yor sa sac mu ne gan a gan man bandi laa man gangsta laa gars yi jël loolu di ko tiktok di ko yóbbu fu ne parce que dal nañu sax am na même ci réseau yi ay nit yu mandi ay ay apéris yu malade yoo xam ne dañuy jël ay mbir rek di ko tiktok ay yëfu dof tey boo jëlee Cheikh Baara am na lu am solo lu mu wax ndax euh, dama gis benn affaire bu bees boo xam ne benn ndaw su ne Sané Madio wax war a wax saajo Mané ne saane Madio affaire bi gars yooyu moom la ñu jël taa caa temps yi def nañ ko caaxaanikaay ndax ñun moom Sénégal ñun caaxaan daf ñu fullaal lool waaye yenn saay def tuuti fullaak fayda ci sa vie tamit baax na ci léegi nag ma ñëw déglu loo leen Cheikh Bara laataa nag may ñëw wax ci mbirum Casamance parce que am na benn vidéo buy circuler ay personnes mal intentionnées de la l'APR ñu jël benn vidéo monté ko ñu ne ñooñu euh, maanaam waa MFDC la lieutenant Salif Sadio la moo ne Ousmane Sonko du mas a nekk président ci Sénégal dinaa ñëw leeral kaddu yi parce que dafa am kaddu yoo xam ne loolu la waa ji wax te borom dégg-dégg moo koy dégg léegi kaay ma wax leen d'abord ñu ñëw ci Cheikh Bara bismillah ak am xam-xam. na ci jabar nga ceetale ko mu jeex. ak am xam-xam. nga xalam ko. ak am xam-xam. daayira yi boo ñëwee ñu propagande la nangam jëf diw jëf na nangam. gars yi partagé leen ko da nga ciy màggali Touba. partagé leen ko mille fois ah. bu dee guy mi nga bokk da nga bokk Kajoor. junni ak ñaar téeméeri kenn ku ne laalal sa loxo ci partage nga sëñ mën a jaar moom mu nekk junni ak ñaar téeméeri partage gàmm am na fooy merci sëñ bi nga jébbalu bu dee sëñ soxay boog sëñ basiroog sëñ murtala koo mën a jébbalu am na màggalu boppam goo xam ne moom da nga a dem muy ñett nga jóge ci sëñ bi ngay dem dina ñëwaat ganesi la ci at mi maanaam moom bu ñu paree day gane jiwaat day ñëwaat ndakaaru ganesi la nga defaat ca la nga ca boo boole ceeg boo moytuwul dayra bi yi ñoom tamit dañu amaat seen bisub cantaat boo xam ne dañ koy santaat sëñ bi muy juróomi bis juróomi événement nga doole ci dokkee doole nag tabaski kori ah tam xarit def nañ ko ci def ci 31 décembre ouverture école yi ñëw léegi yow weer wu nekk sëñ bi événement dong li lay lekkal la nga ko mën a liggéey léegi ministre boo jox avance mu lekk ko tailleur boo jox mu lekk ko ku la leb du la fay koo joxub taxi muy dawal di def ci poosam ñu naan nit ñi dëkk bi yàqu na fekk dara dañoo dugg ci système buñ mënta dundee sëñ bi lii lépp jaaykati gerte yeeg jaaykati muus yii ci mbedd yi ñoo ko ñoo ko yanu di ko doxal boole ko ngoro yi boole ko ngénte yi boole ko céer yi boole ko fayu luyaas yi sëñ bi loolu askan wi attan nañ ko ba ba yowmal xeyaam même ñu tukki woon te yanu ko daanu nañ ancien moodu moodu boo gis tey mënalul boppam dara ñi ko ñi ñi tukkee gu te yanu ko duñ tukki fenn fii la ñuy toog di di di dee ñenn ñi nag fekku nañ jaar ci gaal yi ñii la problème bi demee il faut ñu diagnostiquer ko bàyyi lu ñu wax ñu ne état état état suñ dundin wii ñuy dunde ñun senegal moo baaxut. dundin bi. liggéey amu fi li ngay liggéeyee ah sëñ bi da gis kuy jaay beñe di jaay beñe di jaay beñe di jaay beñe ba yàgg ñu ne ndeyale nañ ko ak ndeyale képp la wax de mu ramasse boppam jëli kaar sëñ bi te li muy def mënu ci tus ah yegg sëñ bi lu ne mën a da koy joxe joxe naa oor joxe naa mbase. léegi après hmm? sama soxna ñëw na fan yee ne dañ maa magale ma ne ko luy loolu bi ma exi bi ma expliqué magale ba pare ree ma sonn ma léegi yow lii loo ci gañe <laughs> dama koy jox nangam après ma jox ko nangam après ma léegi après yow mu ne après jeex na ma ne ko de loolu nu ma ko def moom <laughs> ba mu koy delloo jul magale gi <laughs> ah, parce que système yi baaxut. magale ndayale baayale ah yooyu yëpp ñu yem la ko sëñ bi jigéen ñi natt bu ne nga fas yéene cee bokk. boo leen dégloo li sëñ bi wax kenn mënu cee dindi centimètre ay waxam dafa jaar yoon ñun war nañoo xoolaat déjà ñun suñu taxawaay ñun ci suñu bopp dañu war a xoolaat suñu bopp ndax nit ñii de ñi ñi ñuy trahir nii ñun ñoo leen voteel Bamba Fall waa Medina ñoo ko voteel ba mu am maire. xoolaat leen seen bopp doomu aadama yi nee nañu leen voté leen ay valeur bu leen voté doomu aadama voté leen ay valeur ni ngeen sanctionné Alioune Sall géejawaay boo leen toogoon dix minutes xalaat ko ci Bamba Fall du leen trahir Bamba bu gañewuloon loon Macky lu mu koy doyee Bamba Fall bu gañewuloon Medina Macky lan la koy doyee xam ngeen Macky lan lay doyee Bamba Fall parce que Bamba Fall dafa mës a dem télé wax bétail électoral am ni mu leen di doxalee mais boo xalaatee nga déglu li muy wax da ngay xam ne cet homme est très dangereux pour le développement de euh, d'une société maanaam nee na moom même gardien yi ci école yi léegi daf ko dindi parce que deux cent mille francs bu mu waroon fay benn gardien mu dundal ci famille léegi deux cent mille francs boobu séddale na ko par cinq personnes dëkkal bi sax bi mu doon dëkkal gardien defatu ko donc moom moo ciy bénéficier deux cent mille francs naka la fajee problème mu juróomi nit ci weer te pourtant gardien bi daan am au moins deux cent mille francs kooku mën na cee dundal famille am am luñ ci jariñu Bamba Fall même les femmes ménagères nee na léegi ñoom seen cas daf ko diviser par cinq dafa yor bétail électoral mais malgré moom bétail électoral bi moom ni ko yoree dafa yàq ay doomu aadama pour defar yeneen doomu aadama lu benn nit war a fayeeku mu fay ko juróomi nit pour juróomi nit yooyu def liggéeyu benn nit donc dafa sànkaale ay doomu aadama pour gën a defar boppam il faut doomu aadama yi ñu yeewu Sénégal boo leen dégloo nit di wax Ousmane Tunkaraak keneen ak keneen boo leen jëlee ay wax di ko déglu jëlal kàddu yi nga dégluwaat ko dégluwaat ko nga analyser ko ay kàddu dees ko analyser ay kàddu doo ko dégg rek jël ko daw ak moom danga koy jël analyser kàddu yi bu Ousmane Tunkara ñëwee tey mu ne la ah man de xam nga nu may dimbalee doomu aadama yi léegi au lieu damay jël benn gardien sama kër juróomi gardien laay jël kii bu gardee lundi ak mardi kële gardé mercredi ak jeudi kële gardé vendredi ak samedi mais kooku naka nga leen dimbalee may friend da nga gën a toroxal juróomi doomi aadama mais dimbaliwuloo benn loolu du développé ab réew senegal amatul liggéey xam nga ñun lu ñu dese léegi ay ngénte ay xawaare ay noos ay ay ay ay ay ay tuur mooy tuur keroog dama woo sama benn waay koñ gi yëpp ma gis mu fees dafa ma woo appel vidéo dama ko woo rek mu woo ma appel vidéo nit ku siiw la après mu def ma ni appel video bi woñ ma won ma koñ bi xam nga lan lañ doon def nee nañu coupe d'Afrique bii ñu gagné la ñu doon ngénte coupe d'Afrique bii ñu gagné barki dem boo njaay moom la ñu doon ngénte coupe d'Afrique bi ñu gagné moom lañu doon ngénte can you imagine dans un pays normal Coupe bi ñu gagné moom la ñu doon ngénte est que mas ngeen est-ce que mas ngeen dégg loolu est-ce que nit mas naa dégg loolu ci dundam coupe bu ñuy ngénte mais daf ma won laax wallaahi billaahi man dama waaru ci yàlla ay laax ay togg koñ bi yëpp fees mu ne coupe d'Afrique bi lañu doon ngénte ngénte laa la wax ngénte coupe bi dañ ko doon ngénte réew moomu naka lay développé nanu góor góorluwaay am na ñu ñu jiite am na ay borom xam-xam yu ñu jiite yooyu boo leen toppee seen ginnaaw duñu masa mës a trahir am na ay doomu aadama yoo xam ne ci senegal il ne vont jamais trahir lan moo tax tey ngeen gis ñoom ñu ñàkk nelaw carrément ñu armé ay nit ñu armé ay saagakat armé ay ay reykat armé ay nit maanaam façon groupe bu ne dajale nañ ko pour lan pour xeex benn doomu aadama ak bakkanam benn doomu aadama la ñu wax moom la ñuy xeex ci doomu aadama boobu laay ñëw léegi dafa dégg dafa am video boo xam ne ñoom dañ ko nekk di circuler fépp ci réseau yi vidéo boobu lii la wax. Fall a Ousmane Sonko ne président du Sénégal. Lorsque gis ngeen vidéo bi benn liet naa nee nañu Salif Sadio moo ko def ñoom ñoo wax lool waa APR te euh, ab avant élection présidentielle yi la ko def bi mu ko defee avant élection présidentielle yi Ousmane Sonko moo jël troisième ci élection présidentielle yi loolu c'est après la vol ndax Sénégal yëpp nee nañu ñi déggoo yëpp nee nañu Ousmane Sonko moo gagné élection présidentielle yi ñuy jógee ñi am xam-xam moo tax Idi trahir Idi ànd ak Macky moo tax Idi ñemewuloon yuuxu ne on n'a qu'à taper sur la table nañu dem deuxième tour parce que Macky xamoon na ne Sonko moo gañe mu teg dil ak Idi ne ko gañe dara yow moom bul fi yuuxu yow moom xam nga looy def dof-dof lu rek nga retardé booy bi nga jàpp ko nga retenir ko comme ça xale yi bu ñu yëngatu comme ça incha allahu rabbi bu élection yi jàllee rek yow ñun ñu am na ñu def donc Idi moom dafa juboo woon ak Macky Sall ci loolu. RCD sur sur sama diggante ak yàlla waa APR yu kawe kawe kawe kawe kawe ñoo ma woo ñu ne ma ah yéen gars yi am ngeen xam-xam. ñu ne am ngeen xam-xam de li tax ngeen am xam-xam lu tax ngeen am xam da ngeen tudduut seen baaram fi nga xam ne moom mooy metti da ngeen laal fi nga xam ne mooy saf da ngeen laal fi nga xam ne mooy dëgg Macky n'a pas gagné ses élections il a volé les élections waaye Idi aussi n'a pas pris deuxième donc Idi ñemewul yuuxu Idi ñemewul wax Idi xam na ne moom gañewul dara Macky xam na ne gañewul dara donc ñoom ñaar il fallait ñu comploter pour lëndëmal li nga xam ne moom mooy li Ousmane Sonko am ci ndam moo tax ñu tabb ko troisième mais Ousmane Sonko est sorti premier aux élections présidentielles ñu layam layame ko naxasaale ko sàcc ko ba lëndëmal élection yi léegi kii ngeen dégg muy wax kii ay kaddu Ismaïla Madior Fall la doon bamtuwaat Ismaïla Madior Fall moo génnoon télévision nationale bu Sénégal mu ne Sonko na sera jamais président de la République du Sénégal donc ce gars qui comme un fils du sud ñoom loolu la ñu gëm déjà ci MFDC ne Sénégal valorisé wul doomu Casamance ndax ñoom loolu la ñuy xeex donc loolu moo tax waa ji mu ne bi mu génnee dégg loolu dafa kontaan parce que moom li ko kontaanloo mooy assurance bi ñu leen jox ñoom nekk doomu Casamance méritowul nekk président de la République du Sénégal donc ñoom léegi ñoom dañu jël kàddu yooyu tourné ko parce que ñoom il sont forts en manipulation ñoom bi ñu jëlee kàddu yooyu ñu wëlbati ko ñu ne kaay leen déglu kaay leen déglu doomu Casamance nee na Sonko ne sera jamee président du senegal déedéet doomu Casamance boobu dafa bamtuwaat ay kàddu yu Ismaïla Madior Fall wax ne Sonko mii du mës a nekk dara ci senegal waaye ñoom li ñu fàtte mooy sénégalais yi ñun bu ñuy tànn duñu ñu tànnee xeet ñun du ñu tànnee xeet ñun du tànn xeet. ñun jikko la ñuy tànn parce que sénégalais yi nga xam ne ñoom ñooy tànn guddi yi ñu toll c'est les sénégalais conscients sénégalais yi nga xam ne dañu ànd ak seen sago ñooñu ñooy tànn sëñ bi man Amérique laa nekk fii noir américain matul vingt pour cent de la population minorité la bu mag Barack Obama keroog bi muy jóg pour nekk président de la république am na ñoo xam ne dañu yaakaaroon ne moom ci ay gént rek lay dund dinaa leen wax benn secret de il a la plus grande victoire des élections présidentielles au premier tour de l'histoire des États-Unis d'Amérique keroog bi mu gagné élection yi aussi bi mu wootee ci parku Illinois bi pour inauguration doomu aadama yi fa daje c'est la plus grande foule de l'histoire des États-Unis donc xam leen ne ñun Ousmane Sonko mi ñuy wax Ousmane Sonko du voteel boppam te du tàbb boppam ay doomu aadama ñoo koy tànn te doomu aadama yooyu ñun suñu conscience la ñuy voté we gonna vote with our duñu voté suñu suñu xol mais suñu xel yi suñu xalaat yi la ñuy voté ndax dañuy xool Ousmane Sonko mii de bu ñëwee ban xam-xam la am pour développer programme mu indil ñu ko teg burok la wax xam nga Ousmane Sonko ba mu demee Casamance mais il a écrit un programme son programme est nommé burok gars yi may leen ma une minute may leen xaar leen ma une minute ma ñëw dafa am ku may wax. Le président Ousmane Sonko a dit burok maanaam programme xam nga tey nit nee nañu doomu aadama boo bëggee jiite ay doomu aadama dang leen di wax lan nga leen mën a defaral ci seen vie pour seen dundin gën li nga xam ne ci loolu lañuy dund ba pare xawma keneen man Ousmane Tounkara du ma dun duma ma du voteel doomu aadama ci lu dul ndax ndax Ousmane ko bañ na ko ndeysaan ba saabu élection jubee nee na dañu war a am débat nee na dañu war a am débat Ah, sama benn xarit bu Seydi mu ne yow wax rek déedéet Sadibou Seydi du ma wax rek dinaa cotiser te bu ñu wootee marche dinaa génn moi je suis différent man de man beneen doomu aadama laa bu différent man bu ñu wootee ndaje ci dëkk bii ma nekk maa fay jiitu bu ñu wootee cotiser tamit je te garantis que damay cotiser donc lépp loo xam ne intérêt Sénégal mi ngi ci bul ma compter ci ñi nga xam ne wax rek la ñuy def parce que man defuma loolu te xam naa ne. sama xarit yu bari aussi defuñu loolu xëy na nag man nga trouver benn ay nit benn benn ñoom seen liggéey mooy jaxase kii ak juut kële wax ci kii wax ci kële d'accord mais man moom tàppeel ci réseau yi rek amul benn marche buy am boo xam ne ci histoire du Sénégal fii ci Amérique te ñëwuma ci taxaw je serai présent à tout moment nag nit ku nekk nag fi nga bokk foofu nga war a contribuer damay gis ay nit yu bari dañ may ne ñëwal Sénégal waaw dangaa bëgg Sénégal ñëwal senegal mais non non la suis là aux États-Unis je contribue ici ma famille est là mes enfants son la ma femme est là lépp lu ma am ci àdduna bi mi ngi fii ci Amérique fi laay toog fii laay liggéey ma ñëwaat ci encore l'affaire Salif Sadio voilà donc li nga xam ne moom la ñu bëgg a dugal ci suñu biir bopp yi li nga xam ne loolu lañu ñu bëgg dugal ci suñu biir bopp yi loolu ça ne marchera pas du dax de ça ne marchera loolu du dox parce que ñun dafa am lu ñu gëm ñun dafa lu ñu gëm ñun dañu gëm ne tey senegal nit buñ koy fal dañ koy fal ci ay valeur ñun ay borom loxo yu set la ñuy wër senegal dootul faral luubalkat senegal dootul faral luubalkat senegal dootul faral doomu aadama boo xam ne luubal mooy liggéeyam dootu ñu def loolu parce que tey sénégalais biy fal ak sénégalais bi doon fal démb dañoo wute. sénégalais bi fal tey ak bi daan fal démb dañoo wute ils sont différents dañu dul bàyyeeti benn doomu aadama nag te li may wax nii mu leer incha allah dañu bàyyeeti benn doomu aadama mu décider ñu suñuy pal Sénégal tey ñun bu ñuy fal ñun ñooy fal te bu ñu falee dañuy sécuriser suñu ay vote bu ci yàlla àndee moo tax may woowaat doomu sénégalais yi nee naa leen gaa yii lii nga gis ne moom la ñu jël di ko fustiger di ko tas ci réseaux sociaux yi ay caaxaan la dañu bëgg boole ak ñii nga xam ne ñoom ñoo am ñoom la ñu am jafe-jafe ak ñoom et c'est pas notre problème ñun bëgguñu benn doomu sénégalais tooñ beneen sénégalais mais bugguñu aussi benn doomu sénégalais bëgg jël ay problème dugal ko ci ci diggante ay nit yu mu nekkul vous avez déjà Sonko stigma stigmatisé ngeen ko vous l'avez traité de tous les noms de chat nee ngeen Sonko MFDC la nee ngeen Guy Marius Sagna MSDC la maanaam jël ngeen tur àdduna bi yëpp dugal ko ci ay doomu aadama jël leen tàbb leen ñàkkal leen fayda jël ay tur yu bon di leen ko jox waaye loolu taxul ñun ñu dellu ginnaaw ñun du ñu dellu ginnaaw de du ñu mës a dellu ginnaaw du ñu xaddi nag yéen continuer leen ci seen ay manipulation ci seen ay kaddu yu ñaaw dem leen ci YouTube bi lépp loo leen fa fekk mais YouTube bi sax yéen boo leen fa bëggoon dellu boo leen demee jël kaddu waa APR kii di activistu u du activiste sax ma euh, euh, opportuniste jéggal leen ma opportuniste u yi boo leen demee jëli seen kaddu démb yi ci biir réseaux sociaux yi dingeen xam ne kenn du ñu nawle kenn boo leen demee jël ancien politicien APR yi ngeen dem jëli seeni ay kaddu démb ci biir réseau sociaux yi doo leen mere kenn dem ngeen déglu leen il faut ngeen déglu il faut ngeen dem déglu yéen laa bëgg ngeen jël seen temps boo leen gisee waa APR bu dijji làmmiñ rek dem leen ngeen tappe turam ci réseaux sociaux yi ngeen jëli ay videwom c'est très important waxi démb nit dafa important même Tunkara soo leen bëggee xam Tunkara mi waaw ndax jub na waaw Tunkara ndax li mu doon wax demb li mu doon wax suba waaw Tunkara nangam dem leen ci réseau bi bu leen xaa bu leen xaddi bu leen sonn bu leen dellu ginnaaw boo leen bëggee xam aussi waa APR dëgg boo leen gisee nit di wax ci Ousmane sonk tappe leen turam ci réseaux sociaux yi ab Ablaye Ndiaye wala Demba Sarr wala Mademba Kurubari wala Maxari Ndiaye dem leen tàppe seeni ay tur ngeen xool yan façon nit lañu c'est les mêmes personnes qui disaient démb ah Sonko wàlliw la allahu akbar Sonko messi la Sonko lii la ñoom même nit ñi la Macky Sall la tey ah oh, Sonko démb la Sonko rey na nit c'est c'est ça la vérité c'est ça la vérité il faut doomu aadama yi bàyyi loolu xel Sonko ñi koy saaga nii yëpp tey Macky Sall dafa gisoon ñu ànd ak moom démb mu xam ne ñii ay opportuniste lañu mu convoqué ay nit ne leen jox leen leen tuuti xaalis maanaam mu mel ni nga fekk xaj bu xiif nga sànni ko yàq c'est les mêmes personnes qui clapaient hier Sonko moo fi gën Sonko, il est clean. Sonko, il ne vole pas. Sonko, il ne ment pas. Sonko, il ne taquine pas. C'est ces mêmes personnes qui sont revenues encore tey. Sonko dëmm Sonko rey na nit. Sonko matt na xaj. Sonko xaj matt na ko. Sonko golo. Sonko muus. Sonko nangam. C'est les mêmes personnes. C'est ça la vérité. c'est ça la vérité doomu aadama boo bëggee xam kii wax rek tappe ko tappe ko ci réseau bi <laughs> ba ba lii amee ba léegi arbitre man man bi ñu créé écran VAR man eh, problème yi tàmbali na Sénégal <laughs> ba ñu defee nii ba FIFA FIFA créé daal ba ñu créé bi ba ne nii man eh, ya ya problème yaa <laughs> le Sénégal y aura problème parce que dafa am ci ay doomu aadama yoo xam ne man yenn saa yi damay laaj sama bopp ñii ay nit lañu wala ay bàyyi ma lañu xam nga même bàyyi ma dafa am valeur nit ñi xamuñu loolu mais même rabu àll ñoom dañu dañu am considération entre eux moo tax nit buñ koy ne traître traître du rabu àll rabu àll du traître vaar oh bi ma gisee lii ba léegi ñu def nii vaar <laughs> la ilaha illallah la transhumance waa kan moo am vidéo transhumance boobu la transhumance la transhumance jox leen ma la transhumance ah xoolal xoolal lii Jibril Ngom audience Macky Sall Ngom kii moo jaayoon euh, euh, mandataire euh, yeewi askan bi jaayoon yeewi askan bi Matam Fuuta mi ngi nii <laughs> ah Fuuta waa ji mi ngi ak saaku xaalis bi regardez ba mu génnee ba mu jaaxle ñu ne ko saag bi lan la mu ne moom moo ko yóbbaale maanaam kuy seeti président de la république <laughs> ci àdduna bu mujj bi ñu bàyyi la yow nga yor benn papier boo xam ne dafa am lu ci nekk photo bi moo wartoon génn yàlla moo nekk di xawi seen sutura yàlla moo ne di leen feeñal yéen ñëpp di ngeen feeñ yéen ñëpp di feeñ benn par benn nag amul benn kàddu boo xam ne di ngeen ko yëkkati yëkkati ay plan yu bon di ko teg sur place te doo leen feeñ yéen ñëpp di ngeen feeñ benn par benn benn par benn nag gooto gooto ku gooto gooto di ngeen feeñ yéen ñëpp di ngeen feeñ de xam nga mbir mi moom léegi dama bëgg ngeen wax ma leen lan mooy différence su Djibril War ak Bamba Fall Djibril War ak Bamba Fall lan mooy seen différence Djibril War Bamba Fall Mbuxuri Fall Mbuxuri Fall Djibril War ak Mbuxuri Fall lan mooy seen différence lan mooy seen différence quelle est la différence boo jëlee tey Mbuxuri Fall Bamba Fall nga teg ko moog Jibril Waar lan mooy seen différence parce que saaku xaalis bi ñu jox Jibril Waar mu jaay ngoram même saagu xaalis bi la ñu jox Bamba Fall mu jaay ngoram Bamba Fall du jaay ngoram Macky Sall gratuit c'est pas possible c'est les mêmes personnes amuñu différence six mooy neuf demukaayu wanagu xaj ak gémmiñu xaj maanaam xaj bu wëccoo wala mu dem wanag ñaari yëpp même effet bi la ñu lan mooy différence c'est les mêmes personnes te bari nañu même ci réseau bi ils sont nombreux il jaayu rek la ñuy def saa boo fekkee nit man am naa am nangami vie xool leen ma je suis là regardez fi ne man moo tax ma ragal nit ñu mel noonu j'ai peur des personnes comme sa dama ragal loolu parce que ñun ñëpp ñuy liggéey mën nañoo liggéey te yàlla rek tax mën nañoo concentré wu ci liggéey bi waaye sa grand man a man a man a ça fait saa boo déggee nit man la maa moom fii maa changé lii maa soppi àdduna bi maa yéegal lii maa wàcce lii jar naa ragal c'est ça la vérité dafa jar a ragal aujourd'hui aussi gars yi on a vu euh, waaw mu ne kii dafa pata <laughs> kenn kii dafa sew <laughs> waaw loolu rek de biir biir yi rek mooy différence waaye defe naa Jibril Ngom tamit temps yi bu jële xaw ma cinquante millions xaw ma quarante millions yooyu def ko ci biir bi biir bi dana yokku de waaw ma jël kii woote waaw ma jël kii woote asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam Tunkara naa la sama sëriñ noo def. waaw maa ngi lay woowee Paris. waaw waaw eh, dégg naa la di profité di dugg ci émission bi. waaw bismillah bismillah ku bëgg a woote rek boo eh. wootee dinaa la jël loolu bàyyi leen ko xel. c'est que yenn saa yi. voilà soo loolu la vas-y. waaw di profité di félicité Sénégal yëpp ci li mu nekk champion d'Afrique. macha allah di leen ñaan yàlla mu jig leen ñëpp. aussi tamit di wax aussi tamit euh, di féliciter suñu président Sonko. Mhm. ci ndam lu mu am ak waa waa waa waa Yewwi Askan Wi. Mhm. bon bon affaire Bamba Fall bi nag. Mhm. ñun bettu ñu quoi ñun ñi nga xam ne ñuy suivre affaire yi li bettu ñu. Mhm. waaw waaw bettu ñu mais nag eh, di wax gars yi ñu préparé rek. gën a continuer combat bi. Mhm. gën euh, xel suñu avenir. parce que ñii ñëpp suñu avenir intéressé wu leen. seen bopp lañ fi nekkal ak sen poche. bon di bàyyi ñëpp ñeneen ñu dugg loolu rek laam euh, wax quoi. merci jaajëf jaajëf voilà donc yi ku bëgg rek vraiment bu wootee dinaa ko jël amul amul benn jafe-jafe ku woote rek dinaa la jël voilà am ngeen numéro bi donc ku bëgg a woote rek mën ngaa woote mais tey affaire u ASP ASP yi euh, defe naa ASP yi ku leen xam euh, borom moto Dakar yi ñoo leen gën a xam borom Jakarta yi Jakarta maane ak borom scooter yi defe naa ñoom ñoo gën a xam kuy ASP o Sénégal moo tax ñu daan wax doomu aadama yi rek ñu ne doomu aadama lu muy def rek na ci bàyyi xel parce que ñoom li ñu loon xel en ce moment bi ñuy jëflanteeg doomu sénégalais xamuñu woon ne Macky sàll daf leen doon utiliser contre seen propre population xoolal doomu aadama bi génn nii tey di leen jàppale ànd ak ñoom xeex suñu frère Guy Marius Sagna un patriote un sénégalais un fils digne du Sénégal mu génn di ànd ak force yooyu di xeex pour ñu jox leen seen ak ak seen yelleef ñu jàpp leen di leen toroxal même AFP yi de c'est la même police ñi nga xam ne dañu doon ànd ak ñoom di xeex di leen dimbali di leen protéger même police boobu moo tourné di daw di dal ci kaw AFP yi c'est les mêmes personnes la même famille les mêmes individus ñi nga xam ne ñoom ñoo àndoon démb tey ñu ngi reyante fàllu laay da ngay def zéro zéro un ah zéro zéro un trois cent quarante sept cinq cent quatorze vingt quatre soixante dix voilà donc tey boo xoolee le cas des AFP lan ngeen gis tey lu jaroon lii te defe naa lii jàngat bu bari lañ ci war a def am na ñeneen ñu ci war a jàngat lu bari naka ngay jëlee borom kër solal ko tenue liggéeyloo ko defloo ko salbuloo di ko loo ay nit di ko jàppaloo ay nit di ko tortureloo ay nit pour nga fay ko cinquante mille francs loolu naka la yenoo maanaa loolu naka la yenoo maanaa seetaan leen rek c'était les mêmes personnes qu'ils avaient di dal ci kaw sénégalais tey lan la Macky Sall def il les a tourné le dos xam nga Macky Sall lan la leen def Macky Sall nervier mi la jël mu promouvoir leen yóbbu leen ci police ba pour ñu koy dóoral doomu sénégalais yi mu jël ASP yi nga xam ne c'était des forces qu'il avait intégrées avant pour jàppale police mu sànni leen ci biti cinquante mille francs nu ci mën mën a dunde cinquante mille naka la ci doomu aadama mën a dundee Sénégal c'était nos frères c'est nos frères man ñun injustice la xeex te injustice dañ koy xeex ci képp kuñ koy teg nee naa leen même Macky Sall ñun bëgguñu kenn teg ko injustice gëmuñu ko bëgguñu ko dañu bëgg mu abal ñu suñu réew mi ci li mu gën gaaw bokk naa ci ñi nga xam ne gëm naa ne du yeggali mandat bi malgré nag bëgguñu yëngal dëkk bi dañu bëgg a doxal bu dee moom nekk na nit ñu bàyyi ko bu dee nekk na nit ñun ñu ne tekk bàyyi ko mu génn ceeg jàmm ak salaam. xoolal li xew ci ASP yi regardez la souffrance que nos frères sont en de subir. xool leen li ñuy dund ñu leen di dóor di leen saaga di leen jàpp ñoom les mêmes personnes ñoo xam ne ñoom ak ñoom ñoo doon ànd démb ñu leen di jàpp di leen maltraité di leen yóbbu police parce que li ngeen fàtte yeen mooy Macky ay nervi la jël léegi dugal leen ci police bi yeen ASP lay wax ñun population sénégalaise bi ñu génnee ci Coupe d'Afrique bi Macky xam na ñun ñaata lañ toll Macky yabuñu ñun xam na ne ñun suñu génnee policiers yi dañuy mel ni une goutte d'eau dans polisu Sénégal mënaluñ ñu dara mais tey xoolal tey naqar bi nga xam ne mi ngi dox Sénégal ay doomu sénégalais ay nit yu servir seen pays ñu jàpp leen di leen toroxal di leen dóor di leen saaga di leen manqué de respect ci ay nit yuy laaj rek seen ak ak seen yelleef seen pay cinquante mille francs nu ci nit di dunde xaaw balaa nga cee fay paas damay damay jël exemple ci sama bopp rek tey Sénégal mënoo lekk ci journée te yoro au moins trois mille francs trois mille francs boo ci passé aller retour cinquante mille francs boo ko divisé par trente jours ñaata la lay jox cinquante cinquante mille divisé par trente ça te donne mille six cent soixante six mille six cent soixante six la ñuy fayeeku par jour soit disant deux virgule neuf dollars américains matul sax ñetti dollars américains xam nga luy minimum paiement ci réew yi ñu nekk par exemple ñun minimum payment salaire minimum set dollars la par heure par individu par heure te minimum huit heures de temps ngay liggéey par jour set dollars par jour non par heure benn waxtu ñun Sénégal ñetti do euh, ngay fayeeku ci bis bi ñun fii fukki dollar ak juróom-ñaar ngay fayeeku ci benn waxtu numéro baa ngi nii am na kuy woote ci beneen numéro bale boobu numéro kiiwu la bii numéro ngeen di woote ku bëgg a woote voilà fii ngay woote voilà merci asalaamaaleykum waaleykum salaam ziar nañ la sama sëriñ bu baax a baax maa ngi lay delloo siyaar. noo def. ça va na koy tey nag. waaw ñu ngi lay déglu ñu ngi lay déglu bismillah. waaw mais sa émission bi la fekk nii léegi léegi nii. waaw parce que euh, ma déglu ma man soose la de eh, Tunkara ma dem ma de. ah nga man de kaw fanam mooy le boo bëggee lakk soose lakkal soose ñun nous on est national ñun dañu dégg lépp ci Sénégal. voilà merci. naatara pour ka bokkule eh, émission ñinnato quoi parce que ŋatara no i b'a folo quoi mais asp me ka feten quoi sansanan tun daja asp ñiŋ a to duŋ fɛn kol le mu a walla makisala la ansan secret le walla parce que ni kuma doolu moyi rek ka taa fatandi niveau Eh, ato ɗum comment adresse ça eh, ensemble eh, gouvernement wala ah. quoi kafta état mala ah. gouvernement on si ok yo donc wayatena mojama siratela quoi an tol ke kilo walla mhm. ka avant sans secret le donc do ko ñamamɓe kerim banko ka mambetea mais mhm. to dal la quoi ele nga baka quoi chaque jour nke chiffre la quoi machallah waaw ah. Ah, nge siyar baka ɗo ko diyatanga baka nge kanu baka wallahi ah, toña diyatale bare butum mo keta ñawoñarande ñama min ka wo fo tu gara ɓe ɗo ko balla sénégalais ɓe ɗo ko balla sénégalais yewa jeewo donc mbe félicité la la baka parce que ah, inchallah banna ngeekili waati doo bi jee téléphone o fanan buka taran daala mm. waato be yaalon ni nga ñin doo koo fanan ke waati doo bi jee nka taa dimbayal fanan daala le wala yaatin c'est ah d'accord voilà allah bari mba feere ke la le mm-hmm. inchallah mbe ñoo soto la le ah. eh, lundo ni ala sant <coughs> abarka problème merci beaucoup voilà euh, waa ji balaa may voilà demal demal sawaay maa ngi lay déglu asalaamaaleykum. ça va grand Ousmane maa ngi lay ziare. naa la maa ngi lay ziare bu baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay. maa ngi lay félicité bu baax. waaw si liggéey bi. bismillah gis naa ni yaa ci combat bi bu baax ñu ngi lay si félicité. Ah, suñu suñu wareef dañuy def suñu béy suñu waar. non noonu la vraiment mooy loolu ëllëg moom da nga sa njaboot bu la waxee nga ne xeexaloon naa Sénégal te yàlla nga ci am ndam ci barke Sëñ Fallou. amiin yaa rabbi yàlla. eh man affaire Bamba Fall bi man ma. Mm-hmm. te ku nga xam la. Mm-hmm. mais man ñoom ñëpp laa yemale muy moom du ma tudd tur ay ñooñu gëm sa affaire la man ñooñu seen affaire ñoom Macky Sall laa yemale. Mm-hmm. comme ay TFM ak RTS bu ñu fi xuloo ma ne ñoom seen biir la man sama yoon nekk <laughs> mhm. li may am sens daal mooy kenn laa gis kenn laa gëm te si lu mu nekk si laay nekk bu tegee ma teg bu kiyee ma kek muy proche. Mhm. si lu mu teg si laay nekk. même biir Pastef ba mu di transhumer tax loolu sama yoon nekk si. Mhm. su sama bi pare gars translate après ok voilà vas-y dinaa vas-y frère. après naa bañ a jël temps bi waaye bëgg naa Ousmane bëgg naa am sa contact parce que vraiment dama lay suivre bu baax a baax mais au ki waxtaan te bëgg naa am sa contact. lii lii sama numéro la boo bindee da nga bindal. nga ne comme sama sa sa frère bi nga doon waxal keroog ci live bi bi nekk Italie boo ma xam nga comme nit ñu bari ñooy woote problème bi loolu la bu ma paree yenn saay live bi. il faut ma teg ok fallu laa tudd. fallu ne la mën la fallu rek. voilà dinaa xam su ma voilà dinaa xam. ok. ok merci. jërëjëf Fallou Italie. donc suñu frère boobu Casamance li mu doon wax nee na ñoom AFP ASP yi ñoom agent secret lañ leen tuddee ndeysaan des agents secrets mu ne parce que ñoom li ñuy def mooy dañuy rax doomu aadama yi li ñu déglu rek lu ñu dégg rek yóbbul ko état maanaam amuñu confiance ci ñoom maanaam. sénégalais yi dañu dem ba jàppee leen ay noon maanaam xam le xam ne ñoom li ñuy lijjanti ci seen biir maanaam lijjantiwuñu jàmm doxuñu ci njariñu Sénégal donc mooy li ñu doon wax ne léegi rek ñun li ñu bëgg vraiment dañuy bëgg pour rek doomu aadama yi ñuy bàyyi xel xam ne ñun ñëpp benn lañu muy ASP muy police muy gendarmerie muy armée sénégalaise imaginel tey ngay dóor ay doomu aadama bu suba doomu aadama yooyu ñëw ilif la tey comme bu doon police wala gendarmerie nga am loo xam ne yéen a ngi koy seq ak pros wala yéen a koy seq ak Bart wala yéen a ngi koy seq ak Khalifa ëllëg kooku ñëw ilif la xam nga loolu boo leen mënee toogaat day doon gàcce ngay toog di xool doomu aadama boo xam ne yow yaa ko tooñ waa salaamaaleykum waa sëñ bi ñu ngi lay ziare bismillah ah, maa ngi lay ziare mm-hmm. Eh, maa ngi la fellu sa kàddu yi. jërëjëf. Eh, ma yàgg naa la di la seetaan. Mm-hmm. Eh, di la ñaanal jàmm. Mm-hmm. amiin takawaay bi nga takawaay bi nga nekkee ci Sénégal. Mm-hmm. keroog maa ngi keroog maa ngi rewoo Californie keroog bi nga am problème foofu. damaa jooy ko allah. Ah, yàlla baax na yàlla yàlla dégg na seen ñaani yëpp. ma ne ko Kalifon. Mhm. fexeel nga waxal ma Tunkara bu mu tiit bu mu ragal. Mhm. incha allahu mhm. dina la xeexal. macha allah macha allah. képp kuy xeexal réewam yàlla dina la xeexal. macha allah loolu laa gëm de. yow yaa yow yaa kaat yow yaa lay woowee Sénégal. macha allah. naka waa Sénégal. billaay wallaay ñu ngi fi Tunkara. Mhm. billaay wallaay wa tallaahi man de balaa bëgg de yàlla rek tax de. macha allah allah. parce que sa sa dëgg bi nga nekkee. macha allah. te mosoo découragé benn yoon. te maa ngi lay ñaanal yàlla ak sa njaboot ak sa famille ak sa soxna yëpp yàlla yàlla te leen jàmm. amiin yaa rabbi rabbi. li nga ragal ci àdduna. yàlla ko yàlla musal rabbi amiin. Tounkara bul tiit bul ragal. jërëjëf ñu ngi sa ginnaaw. jërëjëf yàlla fay. wallahi wallahi la azim bul tiit bul ragal. macha allah macha bul gëstu kenn parce que boo gëstoo rek daanaka da ngay da ngay kii bul gëstu bul tiit bul ragal. jërëjëf jërëjëf. cofeel bi am ci Sénégal. wallahi yàlla dina la ko fay sa xol. jërëjëf jërëjëf. damaa kontaan tey jot naa la damaa kontaan te xoolal foo nekk rek waxal amiin. macha allah jërëjëf. billaahi wallaahi wa taala ñu ngi lay ñaanal guddi ñu ngi lay ñaanal bëccëg ñu ngi lay ñaanal zahiran baadiran yëpp jërëjëf wallaahi laazim kontaan naa Tounkara jërëjëf merci beaucoup merci merci merci euh, donc euh, gars yi il faut ñu xam dara comme niñ leen ko waxee léegi euh, Jibril Ngom moom dafa jaayoon dignitéem avant les élections Bamba Fall jaay dignitéem après les élections xam nga dama leen laaj ma ne leen lan mooy seen différence ñun ñëpp nee nañu six mooy neuf benn la mais concept yi ñoo wuti parce que Djibril ngoom moom laataa muy dem ci ay élections la jaay ngoram laata parce que Macky Sall mënul woon xalaat ci biir xelam mu bàyyi wi Askan Wi tàbb nit fuuta gàcce bi mu fa naroon jëlee Macky Sall bu bàyyi woon wi Askan Wi à temps normal ñu déposer seen candidature fuuta ba pare campagne ni mu waree Macky la du am dix pour cent ci fi nga xam ne nee na titre foncier la parce que le mouvement Fouta Tampi est réel waxuma leen ndaw si njaay ngoram waxuma leen kooku kooku jaayul sax ngoram parce que ngoram jarul lu bari parce que mosul am ngor waaye mouvement bi ci boppam laa leen wax mooy gune fuuta yi nga xam ne ci boppam ñoo takk sagar yu xonq génn di xeex ak Macky Sall ak ay nitam Macky Sall bu bàyyi woon fuuta ñu teg fa dëgg samp ay ndënd teg xam nga gàcce bi mujj bi mu leen jàppee dégg naa amoon na ci ay bureau de vote yoo xam ne pour te dire tellement que ils avaient accaparé cette maanaam boobu côté àddina responsable APR yi dégg naa ay enveloppe la ñu yoroon def ci kartu euh, euh, Benno Bokk Yaakaar bi ba pare ci enveloppe ba pare yor dix mille francs CFA jox la ne la demal voté nga indil ma yeneen kayit yi c'est extraordinaire asalaamaaleykum aleykum salaam grand frère. sëñ bi ñu ngi lay ziare bu baax a baax a baax. yàlla yàlla nangu ziar ñu ngi lay ziar bu baax kontaan naa ci li ma la jot nii. Euh, man maa ngi woote maa ngi woote fii euh, Paris et puis euh, voilà di bëgg rek andi sama contribution ci li nekk di xew nii. benn bismillah. voilà li nekk nag di xew nii bu mu nekk kenn gis nga yàlla bu mu bu naree defar day mel ni day yàq. Mhm. yaa ngi mhm. may dégg voilà mhm. te lii nekk di xew nii tuuti tuuti rek yàlla tey génnee ñoo xam ne dañu dañu dañu dañu ay muus lañ ba pare jël jël jël colinu gaynde yaa ngi may dégg te boo xoolee ci biir ay muus lañu mhm. te yàlla dina leen bu neexee yàlla en tout cas ñaan yi yëpp mënul nekk ñaan yoo xam ne day daanu. Mm-hmm. waaw mm-hmm. li ñu nekk di def yëpp yow li nga nekk di def sa liggéey grand bu la ci kenn génnee xam nga boo nekkee di tontu nit ñi daf lay xaw dérouté tuuti. ñun gëm nañ sa programme ñun ñu ngi xam li ngay def ñun ñu ngi xam ban ban position nga taxaw léegi nag bu fekkee. à chaque fois que nga génn nit ñi dañuy wax nga taxaw di leen tontu euh, daf lay def ñun def ñuy sonal sax mm, quoi ñun xam nañ sa voilà ñun xam nañ sa conduite xam nañ fi nga taxaw mm. ñun xam nañ yoon bi nga jël te ñun gëm nañ ni euh, dara taxul a jóg grand euh, sinon bu fekkoon dara la rek yow yaa ngi ci dara ba pare yàlla suturaal na la yaa ngi yor sa njaboot te yaa ngi constant ci say démarche yaa may dégg ñëw naa New York ma nag bëggoon naa la gis ne gisuma la mais graaw loolu yàlla moo ko def. yoon mais en tout cas voilà beneen yoon incha allah bu ma ñëwee rek dinaa fexe dinaa la woo incha allah ñu gisee mais li ma lay ñaan de grand. Mhm. en tout cas da koy xool ci ñun ñi lay déglu ñun ñi nga xam ne dañ la jàpp ba pare. Mhm. te ñun xam naa li ngi li ñun xam nañ ko ba pare li ngay liggéey ci yëpp Sénégal moo la ko tax a def. yaa ngi may dégg Sénégal moo la ñor du leneen lu la lu la lu la tax a jóg léegi nag boo nekkee ci yoon day am ay ñoo xam ne day sànn Euh, euh, yàlla noonu la leen bindee wala noonu la ñu noonu la noonu naa ñoom naa loolu mooy seen position mm-hmm. te li lay ñaan daal mooy li nga li la tax a constant ci nekk ci te bu ci dara génne da mhm. nga may dégg voilà te bul tontu quoi tout le temps tamit boo koy booy tontu da nga leen di may buzz te buzz boobu may saan voilà da nga leen di may buzz te te te li laay war suuli dañ la koy ñaan quoi nekkal ci constance boobu te lii nekk di xew li yëpp Sénégal yàlla moo du bëgg quoi moo tax ndànk-ndànk rek ñi nga xam ne tekkiwuñu dara yàlla dina leen ci dina leen fa jële benn benn te dina wone seen kanam au grand jour te ñëpp dina ci teg seen bët bu neex yàlla en tout cas ñu ñun se ginnaaw ñu ngi ñaan et puis yàlla def Sénégal ci àdduna bi ak fu sénégalais mën a nekk yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla la yàlla defal jàmm et puis ñun ñëpp yàlla defal ñu jàmm ko ci bat Seydina Mohamed waaw voilà waaw ok ok ñoo ko bokk ñoo ko bokk grand kon xam naa ba fan yi incha allah dégg nga voilà donc euh, gars yi ñu remercier leen rek xam naa ne moom comme li ñuy wax toujours euh, maa ngi gis sama sœur yaay yaay ami yaay ami ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax ñu ngi lay ziyaare voilà cette dame c'est une grande dame suñu sœur la boo xam ne vraiment euh, xam nañu ne am na lu baax lu bari loo xam ne ndeysaan moo ñu teg ci yoon ndax bi muy gëm Khalifa Sall daanaka ñu bari xàddi nañu moom mu continuer jàpp te woo bàyyi et cette dame ñun ñëpp gis nañu li nga xam ne moom la taxawoo Sénégal donc yaa ami i ngi lay ziare merci asalaamaaleykum waa lire bi maa ngi lay dégg sëñ ñu ngi lay ziare ah. waaw maa ngi lay delloo ziar bu baax maanaam dama ne Sénégal dama gisee ni ñuy xeexee nii. waaw. du ñu mës du ñu mës am ndam. ah déedéet astafurlah astafurlah <laughs> sëñ bi. parce que am ndam danañu am ndam. non non lu tax ma wax loolu. waaw lu tax ma wax loolu xeex bi benn xeex la benn xeex la. waaw mooy jëlee fi Macky Sall. surtout mais tey. waaw tey xeex yi dafa bari dafa bari. ah mais ñun suba ñu xeex affaire ndox. Ah. a ASP yi xeex tey. Mhm. gannaaw suba camion yi xeex. gannaawaat suba ñeneen i xeex ñeneen i xeex dañu war a mànkoo. mànkoo mhm. jëlee fi mag yi Sall. Mhm. ñoom ñëpp def ko xeex bi benn la. suñu booloowul nekk benn say. xeex ko benn yoon. parce que benn la mais tey ñi xeex suba ñuy xeex gannaaw suba ñuy xeex mais duñu duñu am ndam duñu am ndam. il faut ñu booloo ñun ñëpp man koo dem jëli i Macky Sall wax ji loolu kese la du leneen. dinañ ko dina dina jot lu jot rek yomb xam nga mois de mars ku la newoon dina demee ni mu demee xam nga doo ko gëm. waaw ah, ah, sénégalais sës nañu mais il faut mu am benn cause boo xam ne moo ñu dajale ñun ñëpp te incha allahu rabbi Macky dinañu may boobu cause bu soobee yàlla. boo gisee boo gisee xeex bi boo gisee aussi xeex bi aussi tasaaroo noonu c'est parce que féppay metti maanaam côté santé bi doxul Sénégal amul ndox Sénégal courant bi doxul Sénégal amul liggéey Sénégal ñun suñu gars yi dañuy luubal maanaam suñu gouvernement bi jubul Macky respecté wul doomu sénégalais yi donc loolu moo tax nga gis euh, xeex bi tasaaroo noonu maanaam front yi ñoo bari fi jafe-jafe yi nekk moo bari waaye ñu ngi lay remercier sëñ bi sa contribution yow ci ban dëkk ngay woote ah voilà parce que numéro bi quoi numéro bi ma gis jërëjëf vraiment ñu ngi lay ñu ngi nuyu waa Japon yëpp merci beaucoup merci jaajëf voilà merci voilà donc gars yi euh, defe naa est-ce que tey duñ ko yemale fii rek waaye euh, yaa euh, suñu sœur bi yaay ami Euh, li mu bind c'est important ngeen bàyyi ci xel euh, waa Canada ngi woote asalaamaaleykum. allo asalaamaaleykum Tunkara. ziar naa la bu baax a baax a baax a baax. delloo ziar. man itam nuyu naa la bu baax a baax. naka monsieur ak doo ak xale yi ah? maa waa kër gi maa ñëpp a ngi jàmm. <laughs> waa ñëpp a ngi ci jàmm. mais non non non I mean where we fi ñu nekk ci waxtaan bi fi mu toll nii. waaw ñetti pàcc lañu laal tey. waaw gis naa kii bi liste yi euh, ñu dem bindu ci. voilà affaire bu comité euh, waaw électoral bi. voilà loolu c'est important surtout yéen ñu nekk Canada. waaw justement bëgg bëgg nañu ngeen taxawal fa benn maanaam benn bureau. xam nañ ne am na fa déjà dëgër na waaye yeewi askan bi il faut ngeen am il faut nga ngeen am fa benn taxawaay boo xam ne di ngeen guider mhm. nit ñi ñu dem bindu ji non seulement mhm. mais élection yi mhm. bu jotee aussi di ngeen sécuriser vote yi ci bureau yi parce que gars yi dañuy sàcc ñoom fu ñu nekk dañuy luubal ñoom moom bul sonn la dëgg la man mi maa ngi doon euh, laajte ambassade il y a deux jours en fait euh, euh, j'ai eu là le retour vendredi ñu ne ma jotaguñu woon dato commission bi quoi pour ñu mën a déplacer wu pour que nit ñi mën a bindu et puis euh, au niveau du Canada je sais que bureau euh, en fait am nañu organisation boo xam tegu na mais il faut aussi liste yi teel a ñoo xam ñan ñooy présenté wu xool nan la ñuy organiser bureau yi pour ñu mën a sensibiliser le maximum de personnes mm-hmm. ñu dem bindu ji en fait mm-hmm. et euh, préparer ko incha allah ak doole bu ko defee ñu jox victoire yooyu askan bi Eh, ñu utal ñu nag ay candidats yu valeureux yoo xam bu ñu ko demee dinañu défendre waaw ñu défendre et j'ai bien aimé sa intervention tey mm-hmm. parce que non seulement di nga sensibiliser et il faut que ñu nit ñun patriotes ñu nekk tamit yeewu askan bi mm-hmm. ñu décider que ne lii lii transhumance Macky Sall mu jaamloo nit ñi mm-hmm. c'est fini mu yem fi mu nekk bu ñuy tabaxaat mu doonaan lu bees amul question parce que da nga nekk mag wala da am ay diplôme ku ci mën a ñëw joxe ñu ñëw la pierre à mettre la pierre en fait à à l'édifice sa contribution mhm. mu doon loo xam dina amal njëriñ réew mi ak surtout ndaw yi parce que avenir u Sénégal ñëpp ci ñëpp ci am bu bu baaxee daal ñëpp mu ñëw ci bénéficier wu mhm. donc je pense que am na solo bu ko defee yow itam nga continuer di sensibiliser ñu bàyyi euh, ñu bàyyi xabta yi rek uh-huh. juste ñu ñu ñu fexe nan la uh-huh. euh, gën a comprendre programme euh, Yewwi Askan Wi uh-huh. et puis de plus celui du président Sonko incha allah ñu xam lan mooy l'essence du comme li nga doon programme buróot parce que Ziguinchor va être voilà c'est l'essentiel parce que Ziguinchor incha allah ce sera on va dire le programme témoin te bu réussir bu neexee yàlla ñu dupliquer ko mën ko dupliquer ci yeneen région yi et on est euh, à l'heure du travail il faut ñu liggéey suñu tardement yëpp wala ñu bàyyi wax ci te mhm. liggéey dëgg. waaw merci beaucoup voilà lay maa lay ziar bu merci di la remercier jërëjëf merci. merci bye. asalaamaaleykum. waaw mbokk Italie yaa ngi woote ma jël. Euh, suñu mbokk Italie yi maa ngi jéggalu voilà allo asalaamaaleykum maaleykum salaam Tunkara ziar nañ la man ma delloo ziar man la sa sister soxna Oumy Dieng Italie ah, ngi ziare bu baax a baax a baax a baax maa ngi delloo ziar di la suivre tout le nag mais gis naa dugg quand même naka waa Italie mbaa ñëpp a jàmm rek waaw ñëpp a ngi si jàmm ñëpp a ngi si jàmm waaw dama ne xaal ma wax si yow. comme que yow ñi lay suivre yow bëri quoi macha allah. macha allah euh, concernant Sonko. Mhm. waaw Sonko. Mhm. man dama doon proposé ne. Mhm. actuellement comme que nommé nañ ko Ziguinchor. Macky Sall na def le tout pour yàqal ko liggéeyam foofu. Ah, waaw mais ça euh, waaw du yàlla mais aussi. man je trouve que il faut diaspora bi jàppale ko ci benn côté. Mhm. comme moom am na yéene pour Ziguinchor. Mhm. ñun ñu xool naka lañ ko mën a jàppale pour mu mën a liggéey foofu parce que duñ ko tegal moyens yi waat du ma sa am. Mhm. waaw loolu moom du ma sa am te kay gën a empêché mais ñun wax nañ mën a jël loolu mu nekk exemple boo xam ne moom li mu yéene foofu loolu dina nekk preuve parce que preuve boobu la bëgg a def pour pour pour que waa Sénégal. gis ne moom mën na. Euh, moom bëgg na joxe exemple Ziguinchor man pour man exemple fa bëgg a wane exemple boobu nag Macky Sall du ko bàyyi mu def ko. Mhm. parce que li am Ziguinchor ñuy wax affaire Salif Sadio ñoom seen loxo mu ngi ci biir. Mhm. moom moom mooy ndey mbili mooy rebelle bu mag bi moom Macky Sall. Mhm. léegi nag loolu c'est pour que yàqal ko liggéeyam parce que ba jour bu Ousmane Sonko. gagné jour bu ñu jur bi ñu defee élection yi noonu bu ñu jour bu ñu ko nommé jour boobu la. yi am problème. donc ça ça se ci seen bopp ñoom ñoo ko communauté ñoom ñoo ko def. léegi nag boo bëgg ci wax parce que il est trop jaloux. Macky Sall añaan na soxor na te du def lu baax. donc nag comme que Sonko ñun diaspora xam nañ ñun xam nañ valeur Sénégal ñëpp xam nañ valeur mais je pense que ñun à travers moom buñ ko jàppalee dina woon exemple boo xam ñëpp nañ ko suivre. si Ziguinchor waaw ñun nag ñoo si war a jàpp man loolu laa bëggoon lancer quoi waxaale ko. Mhm. yow boo si mënee laay wala nga xoolaat ko dina am solo loolu. Mhm. waaw ok man loolu laa bëggoon waaw. waaw merci beaucoup merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal merci. voilà donc gars yi gars yi xam naa fii la ñuy yemale waxtaan bi tey révision des listes électorales euh, c'est du 7 au 31 mars. voilà donc bàyyi leen ci xel révision liste électorale yi c'est du 7 au 31 xam naa dinañu jël nag benn jour pour ñu mën a ñëw waxtaan ak doomu aadama yi ñu gën a indi ay leeral ci mbir yooyu naka la war a doxee voilà donc ñu leen di ñaanal jàmm di ñaan aussi yàlla may ñu sutura yàlla aar ñu aar suñuy njaboot yëpp incha allahu rabbi euh, ci xeex bi euh, yàlla continuer ñoo dooleel nag parce que Euh, dinañ ko soxla we gonna need all the force dinañ soxla force bi ñu sox force bu ñu may yàlla mën a jox dinañ ko soxla incha allahu rabbi donc gars yi maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax am humbled am grateful am very happy to be among your friends voilà je suis content d'être votre ami je suis humble et je suis content de vous macha allah wa asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh